fierté la honneur la aussi ma and ak ñom ci sama xarit di ñaanal yalla combat bi nga xamné président Macky Sall moko jité mu mu ci ak mom, jité santé yalla may ko ndam may ko ndam mom moy ñu fexé ba coronavirus covid 19 jeex ci aduna bi jeex ci Sénégal rafet nañ ci njort parce que mu ngi ci liggéey di ci def lu am solo té lolu Sénégal yépp Nous sommes d'accord donc monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di am mbégte aussi daje ak yow ci condition yi ñuy dalale wane na ne sunu xarit nga mais ku bëgg réew mi nga mm. bu ñu le personnel de santé dañuy gërëm les lutteurs du Sénégal ci taxawaay bi ñu am di ma conforter toujours mm. ci jàpp bima ma l'ambre. Sénégal mënul dox te làmb amul d'abord parce que activité bu nit ñi bëgg la mais ay kilifa ñoo nekk ci làmb tey wane nañu ko xam nañ ne làmb amatul seen gagne-pain la waaye terewul loolu dajal nañ li ñu am au-delà de la sensibilisation te ministre ñaanaat leen ko léegi pour que ñu def ay capsules yu bari mm-hmm. continuer waxtaan ak nit ñi parce que ku nekk am nga mbër ci réew mi am na koy supporter su ñu waxee ñoom ñëpp rek defe naa ne sensibilisation bu dina dugg ci bopp ñëpp bu ñu dajalee seen alal tey andi muy matériel bu am solo bi ci suñu gannaaw loolu man mi ñuy woowee ministre de la de damay gën a am mbégte parce que wane nañ ne patriotisme ku koy wër boo ñëwee ci biir làmb di nga ko fekk ñii ñëpp ku mu neexoon nga dem toog di seetaan. waaye képp ku bëgg sa réew lu mel nii bu amee di nga poser sa bopp question ne lan laa war a def pour bokk ci lii nga xamante ne xeex la buñ war a gañe képp ku yàlla jox kattan ci réew mi ci kàddu walla alal da nga cee war a dugal sa sa loxo ñoom nag yàlla may na leen kàddu yàlla def na nit ñi sopp leen mais yàlla yit dénk na leen teranga boo xamante teranga bu lew la parce que da koo ñaq am ko kon sen teewaay fi ma gunge comme niko ministre waxee mënoon na ñol sen bop parce que ça ça n'a rien à voir avec les activités sportives waaye japp nañu né une famille restera toujours une famille ñom ñoy acteur de la lutte motax biñ tax nañu ñëw fekke li nga xam mom lañuy def ko ci ministre Diouf Sar ministre de la santé et de l'action sociale accompagner ko le président de la République pour protéger les Sénégalais ma am cawarte ñëw ànd ceeg ñoom te loolu firnde na boo gisee ñi fi taxaw yëpp nga xam ne ay kilifa ñoo fi taxaw ci wàll wi ñu nekk mais ay kilifa lañ ci réew mi kon damay ñaan rek Gris ngeen gën a góorgóorlu ni ko ministre waxee ci sensibilisation bi di gëm nag ne acte bi ngeen posé yàlla na doon liy jeexal coronavirus ci réew mi